asalaamaaleykum euh, waa Sénégal euh, yéen ñi nekk ci réew mi ak sénégalais yi nekk bitim réew euh, ma jël kàddu encore di waxtaan ak yéen ci situation bi nekk ci Sénégal démb ku ne gis na conclusion yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee ci seen dialogue national deal dialogue pourquoi parce que la ñu fa doon waxtaanee jàpp nañu ne bu dee ne njëriñ Sénégal lañ doon waxtaanee. war nañu jiital jeunesse bu Sénégal kon képp lépp loo xam ne da nga koy def pour jeunesse boobu te jeunesse bi boole woo leen ca jàpp nañu looy def pour contre jeunesse boobu la te li xew ci palais de la République démb encore une fois Macky Sall dajale ay màggat yu xobidaas dajale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamonoy Senghor ba léegi ñu ne dañuy waxtaane ëllëgu Sénégal kon ñun jeunesse bu senegal war nañu xoolaat suñu bopp ñun jeunesse bu senegal lañu ñu waxtaane foofu nekkut lenn loo xam ne njariñu senegal la moo tax gëm sa bopp ca njëlbéen nga la taxaw ne ñun dialogu Macky sàll boobu duñu ci dem duñu ci ànd ndax ku ne xam na ne système bi indi Sénégal ci musiba gi mu nekk système bi tax tey Sénégal bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna ñu am lépp luy teraanga lu yàlla di may réew waaye ñu ñàkk lépp ba bokk ci ñi gën a ndóol ci àdduna kenn yóbbewuñu ko lu mooy mag ñooñu toogoon démb palais de la république système boobu nga xam ne vous la jeunesse sénégalaise taxaw ngeen xeex ko système boobu nga xam ne moo nërmeel Sénégal te ñun ñëpp ñu ne système boobu faw mu jóge fi ñi doon waxtaan palais de la république système boobu la ñu fi bëgg perpétuer ngir mu continuer système boobu moo indi musiba moo indi ndóol moo indi jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund man biir na ma ne du Macky Sall ak complice yooyu mu àndal démb ñoom ñooy régle suñuy problème parce que dañuy wax tout le temps ne ki la teg ay problème du kooku mooy doon solution bi kon solution bi yéen jeunesse su Sénégal mi ngi ci seen loxo ña toogoon démb di waxtaan palais de la république ñoom ñoo indi ndóol ci Sénégal ñoom ñoo jël suñu alal ñoom ñoo jël suñu suuf ñoom ñoo rocci lépp loo xam ne yaakaar la woon ci jeunesse bu Sénégal ñu toogoon démb palais de la république de Senghor en passant par Abdou Diouf passant par Abdoulaye Wade ba ñii fi toog tey ñoom ña toogoon démb di waxtaan ñooñu ñoo jël alalu réew mi ñoo jël suñu zircon ñoo jël suñu phosphate ñoo jël suñu or ñoo jël suñu marbre ñoo jël suñu fer ñoo jël suñu petrol ñoo jël suñu gaz moo tax tey Sénégal nekk ci situation bii mu nekk moom Macky Sall taskatu yaakaar la parce que yaakaar lañu ñu moom Macky Sall daf ñu waxoon ne bu ñëwee dana dekkal yaakaar waaye ku ne gis na ne Macky Sall tas na yaakaar Macky Sall yoonu yàqute la teg Sénégal moo tax jamono ji suma xel mënul bañ a dem ci góorgóorlu yi suma xel mënul bañ a dem ci ñi nga xam ne dañuy taaba taaba suma xel mënul bañ a dem ci yéen borom kër yi nga xam ne jaxle ngeen tabaski bi ñaari fan moo ci des ñaata ci ay borom kër ba tey ji amuñu xar ñaata ci ay borom kër ba tey ji gisuñu buum pour mën a wuti xar waxuma la nag dund gu seer gi waxuma la soble kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la pombiteer kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la diwliñ litre mille huit cent francs nga war a dem ci fet say poos bënn amuloo dara ñoom ñi nekk ci gouvernement bi ñu ne am nañu avance tabaski ak seen salaire yi ñu leen fay Macky Sall Macky Sall sa waay jafe-jafe ak ndóol gi nekk ci réew mi yaa ko fi indi Sénégal gouvernement bi li muy liggéey loo ci doomu aadama 167000 doomu aadama la 167000 personnes boo xoolee matul sax pour cent de la population ñooñu boo leen joxee salaire. fay leen seen salaire ñi ci privé bi góorgóorlu ñoom it ba fay salaire ñi am salaire ci Sénégal yépp boo ko boolee matul quatre cent cinquante mille te fukki million ci ay sénégalais ñooy jug saa su ne di taaba taaba di wut lu ñu yore seen njaboot waaw neuf millions cinq cent mille sénégalais yi des ñoom lu ñuy def ñoom ñoom fu ñuy amee xar ñoom ñoom kan moo leen di taxaw jamono jooju. amoon nañu yaakaar ne président Macky Sall jafe-jafe yi réew mi jànkonteel yaa ngi xalaat nu nit ñi war a amee xar ñun nit ñi war a amee tabaski ngir seen xel dal njaboot yaa ngi tas famille yi ñu ngi tas doom mu ngi bere baayam parce que gisul xar ñi am as néew sax li ñu am ci ay xar wala bu ñu jëndee xar daanaka mois de juillet bii di ñëw ci jafe-jafe yu tar la ñuy nekk imagineel ku am salaire trois cent mille nga jënd xar cent vingt cinq mille wala cent cinquante mille fay sa location cent vingt cinq mille wala cent cinquante mille waa léegi nooy yore sa njaboot ci weeru juillet bii di ñëw noo leen di dundale est-ce que di nga taxaw sa papa est-ce que di nga taxaw sa yaay jafe-jafe yooyu Macky Sall moo ko indi ci réew mi kon balaa ñuy waxtaanee waxu conclusion ay dialogue dialogue boo xam ne biir nañu ñun ñëpp ne dialogue gu dóor la. biir nañu ñun ñëpp ne jaloog la boo xam ne daju ci jublu seet nu ñu def dong ak complicité benn classe politique dialogue boo xam ne li leen intéressé woon moom Macky Sall ak ñam àndal du dara lu may lewal ci dal ak jàmm troisième mandat moo tax troisième mandat boobu bi ñu koy def moom président Macky Sall fexe na ba ànd ak ñoo xam ne dañuy yoonal li mu bëgg mu di la société civile cette société civile justement parlons-en cette société civile politique société civile bii nga xam ne Macky Sall la ñu fi nekkal société civile bii wax ne dañuy wax ci turu askan wi te ñoom seen bopp la ñu fi nekkal Macky Sall société civile boobu la àndal ñu naan ko sa troisième mandat fexeel yóbbu ko conseil constitutionnel yéen bir na leen ne yéen sénégal yi. troisième mandat bu Macky sàll bu demee conseil constitutionnel day mel ni lettre ca post bu ñëwee dañu koy bàyyi mu jàll. pourquoi parce que ñi nekk conseil constitutionnel ak ña toog démb di waxtaan ñoo bokk seen genn màndargay ay màggat yu xobidaas yoo xam ne Macky sàll moo leen repêché bàyyi leen ci conseil constitutionnel yëkkati xaalis di leen jox taxawu leen waaw ku la abali gët nga xool fi ko neex. kon c'est clair que conseil constitutionnel boobu du moom moom mooy rejeter troisième mandat bu Macky Sall kon société civile boobu nga xam ne yàgg naa wax ne société civile la bu Macky Sall société civile la boo xam ne li leen intéressé du lenn lu mooy seen bopp société civile boobu la Macky Sall utiliser ci dialogue politique bi ngir nee naay troisième mandat wam ñu yóbbu ko waxtaanee ko conseil constitutionnel liñ ci jublu mooy fii ak boobu ñëpp ànd ak dal ne dañuy déglu conseil constitutionnel mais ñoom xam na ne ñun sénégalais yi gëmuñu conseil constitutionnel ñun sénégalais yi gëmuñu société civile boobu parce que bu ngeen fàttali waxoon naa leen ko ci parrainage bi nee naa leen société civile boobu ñoo nekk ci ginnaaw parrainage bi mag Sall di def parce que ñooy taxaw naan dañuy wax dañuy féete njaaxaanaay du dëgg. C'est des gens qui sont avec Macky Sall. C'est des gens qui cautionnent les deals de Macky Sall. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait lors de ce dialogue national. Et c'est ce qu'ils continueront de faire. Parce que ñëfu parrainage pa dañu wax ne dañu koy sopparñi yenn saa yi sax nga dégg ñu naan la wuy buggaan waxu parenage il faut nga dem waxtaan ci pour que bu keroogee nga jàll dama ne bàyyi leen ma di ma wax waxu parrainage man ak parrainage ou sans parrainage benn objectif laa am mooy xeex pour Macky Sall lu jóge fi man Bougane awma fixation ci nekk président de la République déedéet na Sénégalais yi mën a dund ci ngor dund ci dal dund ci jàmm bu ñu yeggee ci tabaski nit ñi mën a tabaski ak jàmm waaye di dem ci tabaski sa xel dalul muy jaamu yàlla tey jii ñu war a dem ci tabaski ñépp am nañu jafe-jafe